dialogue bi alors euh, ban tontu ngeen ni vous êtes dans le euh, vous êtes justement euh, dans ces manœuvres yi n'a xam ni itam yéen Yewwi Askan le ko étiqueté ba war dem, démb voler volé li n'a xam que justement au secours par rapport à ces accusations waaw non par rapport le président Khalifa Ababacar Sall ma koy nuyu bu baax moom moom sama sëriñ Ok. parce que li nga wax léegi ñu am problème du problème. Hmm. parce que qu'est-ce gis la rek problème non je ne pense pas du problème. parce que Yewwi ah, Yewwi ah. dafa am ben charte bo xamné ni mo leen tënkoon. parce que dañ ko dàq. non non non mais dafa am charte. dàq bu ñaaw non Yewwi oui, du dàq ken dafa am lo xamante ni mom mo ñuy teunk pas de compromis de compromission. voilà li ñu tënkoon nag. moo Khalifa Sall génn na wedd leen. non d'accord, mais hmm. conférence de leaders. ñom biñu démé ba saytu. xol hmm. hmm. ba xam li ñu tënkoon mooy suñu charte bi ba xam ni euh, ñu wàcc nañ ci yoon wala wàccuñ ci yoon après ñu jël seen décision par rapport ak loolu. mais teewul amul benn animosité. Hmm. diggante voilà yeewi askan wi ak le président Khalifa Ababacar Sall. donc loolu c' est. c' est wàcc yoon bi maanaam noo dem waxtaanee euh, euh, il faut se dire les mots tels quels El Malick. Mhm. noo dem waxtaanee moo tax ñu wàcc yoon bi. waaw waaw parce que parce que conférence de leader bi yeewi askan wi li mu waxoon c' est clair. waxtaanuñu. Hmm. parce que loolu waxtaan boobu ñoom dañ doon jàpp ne day dugg si compromission hmm. donc nous, ñu ne Donc, donc moom bi mu la décision am dem waxtaan après li xew xew motax mané lolu ne xew na mais téwul dara ñaaw mais euh, mais ñaaw na kay. non non non non mais ñaaw na mom non non non ça ça dépend. mais euh, d'où la sortie de Khalifa Sall après euh, boss. hmm waaw waaw parce que Khalifa fi nek nekk nak c'est un candidat aussi c'est un candidat à l'élection présidentielle mu yor coalition moom bi muy communiqué dafa communiquer en tant que candidat de la coalition de Khalifa 2024. donc nekkoo leen si ay manœuvre instant bien. non non non non parce que gis nga euh, nattukaayu dëgg hein, jëf nit Nitki, soo ko mësul xam ci ay manœuvre cohérence nga mës a xamee Yewwi Askan donc cohérence Bobo, ci l'as eu nekk ba motax amna ñu bari génnoon nañu wax par rapport à Macky Sall li wax li mm. mais le président Ousmane Sonko jëlaat na ay responsabilités indi na ay position par rapport à lolu lolu moy l'essentiel l'essentiel moy nak est ce que lañ doon wax demb ba tay ci lañu taxaw wala dit te je pense que yewi Askan Wi famu mu demb ba tay depuis plus de 3 ans ci fofu la nekk donc muy euh, compromission muy machin muy truc yoy du ñun nañ xooli benen opposition waaye du yewi askan wi. nekkoon leen si compromis nekkoon leen si waxtaan compromission exactement alors mais si lolu euh, ñu ne Ousmane Sonko son exil fa na xamni te moy mooy zaanu Maroc mu nekk lo xamni tam itam euh, la chronique Ousmane Sonko dafa bañ li n'a xam que modi bobu boobu di exil.

parce que dis nga li ci am solo moy, à chaque fois dama nan, nit mm, mm. soo koy euh, natt rek nat ko taxawayam. Ousmane Cissé su Ousmane euh, le président Ousmane Sonko son n'ango nangu exil kon batay tey tolof tolof yi wala mu nangu ben compromission batay tey tolof tolof yi ko dal du ko dal donc mounou yegg si ba fii d'ici euh, quelques semaines président Macky Sall abal ñu ñu naan ko non dañ lay exiler wala wala leneen leneen yooyu yëpp ay waxu voilà waxu biti la mais l'essentiel ki nga xamanteni ni war na wax par rapport à son sort par rapport à ci kaam wax je pense que page bobu meun nañ ko tourner meun a concentré wu nag. ci li nga ah, xamante euh, ne mais lu mais lu meuni société civile bi Alioune tune génn Pierre Goudiaby bi até Atepa génn. Euh, ku nekk génn di wax donc naka lañ daal di war a tourner su boobaa de page allant dans sens de discrédité kàddu yi nga xam ne itam yëkkiwoon na ko. yëkkiwoon nañ peut-être sen yéene rek peut-être sen yéene la ñuy demee.

parce que sans yaa nan ma par rapport à situation de situation à chaque fois de bi su nekké ci ay jafé jafé day doon yo ni Macky Sall parce que ni koy sookee moy teg lo xamante ni nii ko di def di di donc sa eu tension insécurité amee Macky Sall ci boppam mom moo koy sooke heure yi suñu demoon suñu élection présidentielle batay tey nit ñi ngi ci campagne nit ñi ngi waxtana sénégalais nit ñi ngi nekk ci lenen parce que fi mois de choix la ñu nekatu ñu ci mois wu sénégalais fi mu ni dañu wara choisir ki nga xamante ni mo leen di jité pour cinq ans donc so leen xagné lolu nak lepp lu meunti am muy mort yi meunti am yépp ci responsabilité Macky Sall parce que li def ni bu amul won gëm naa ne moor du am. Hmm. alors donc tay ces trois morts tay amna grâce ak cette décision bi nga xam ni itam président Macky Sall jël na nga japp absolument mom la responsabilité bi yépp mom la parce que Sénégal mi ngi won ci jamm def nañ fi parrainage biñu ñu ci parrainage dëkk bi dafa yëngu da nga dégg ben manifestation ñëpp ñi ngi won sen pay ay parrainage dans l'étendue du territoire national ñëpp ñi ngi mm. won di wut ay parrainage donc mm. amuñu won ben problème mm. par rapport à euh, lolu non mais so gisee li am tay ak violence bi am li ko indi la parce que mënoo xey ben jour lekk sa ceeb ñëw taxaw naan ñu non suñu élection dañ koy repousser te ci lo tegu lu teguwut fenn fenn jàpp nga ni le processus était biaisé non non mais processus bi am na ay manquement yu bëri manquement yi ci am bëri mais l'essentiel essentiel mooy en tant que Sénégal le président Déthié mi Nous koy wax ñun dafa am lu ñuy bàkkee dafa am lu ñu namé won mais fi mu nekk nii soo ay LCI mm. France 24 mm. manam da ngay sax ruus da ngay sax ruus mais l'essentiel moy nek fi mu il faut que Macky Sall xam élection yi moomu Sénégalais ko mom c'est aux Sénégalais de choisir le président de la République. alors c'est euh, exactement El Mali, est-ce que japonais Euh, accusation yi nga xam ni itam nañ ko conseil constitutionnel nekk na accusation yu accusations accusation yoo xam peut-être après les élections Maxel est-ce que tu tout le on assister à d'autres contestations allant dans ce sens exactement est-ce que tu es peut-être euh, seetul loolu lay daal di épargner li nga xam ne sénégalais par rapport ak contestation yi nga xam ne itam mën juste après justement li nga xam euh, conseil constitutionnel peut-être euh, PDS jàpp nañ da ko daal di def deux magistrats le juge Cheikh qui ak ki nga xam le juge Cheikh Tidiane Coulibaly sont des accusations yoo xam ne itam gis na non par rapport ak accusation man man ay wax rek laa ci am.

dégg lañ ci am am na traçabilité am na lii am na lële te defe naa tamit borom dëj mën na jooy dëjëm le procureur defe naa autosaisiru na autosaisiru na autosaisiru na donc mën naa ne assemblée nationale c'est une qui moom. Euh, tegee à côté. L'Assemblée à côté. Ah, assemblée nationale c'est décisif moom sax euh, à côté. en attendant mu le procureur de la poursuivre. voilà donc procureur voilà procureur Macky Sall procureur ministre de la justice. Nous mm-hmm. avons dafa am schéma pour xamante ne nii pour pour gagner du temps non non non non non non parce que il est il est il est sous tutelle il est sous tutelle du ministre de la justice. Le ministre de la Justice dépend de qui Exécutif. De l'exécutif. Donc, nous avons de tenir en haleine mm. pour gagner du temps, machin, truc. Donc, voilà, nous, on sait ce qui se passe. Macky Sall, il y a un body. Il y a un body qui body. Nous, fi mu nekk nous, li ñu bëgg def suñu focus sur suñu élection présidentielle parce que dossier yo yëpp élection téwul mu taxaw. Hmm. après élection dossier bi vidé. donc je pense que. mënul té processus bi nga non non processus bi lan la noire, wax soupçon. de corruption soupçon de corruption. mais mec, il faut def stop l'éral. non non taxaw leeral tout ce qui s'est réellement passé. non attends Nous suñu démé bay def accusation je pense que war nañ am preuve yu doy parce que ni ay audio ni ay virement bancaire et tant d'autres et d'autres mais mais virement bancaire lan moko ko gën lan moo ko gën sophistiqué sophistiqué parce que traçabilité bi d'un clic mon lañ ko envoyé. Ah nañ xool ban banque la moko def machin truc ñu yónnee mais problème je vous dis devant nañ ko ci ay affaires yu bëri di tenir en haleine pour gagner du temps l'affaire Adissar est passée par là. Hmm. dañu dem ba am ci jàngat xam seen méthode yi ñuy fonctionner.

avec un mm. candidat de Yewwi askani mm. notamment le président Déthié non yoyou, Inch'Allah, dire qu'on l'air, leeral ba mu leer mm. képp koo xamante ne nii yoreel nga askan dara tu seras obligé de euh, faire parce que voilà